wa rahmatullahi taala wa maa ngi ubbee samay kàddu di ziar tey ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla suñu boroom yàggal te mu ànd ak wér jataay bi day yëg na ko joxe ci ndigal ñaan ci waaye dalal na ci suñu xel biñ ko waxee kuréelu Hizbut Tarqiyyah yi ñoo war a daje ngir soññante fàttalante li nga xam ne mooy liggéey bu màgg bi ñuy liggéey ci xaside yi ak xam nan lañu war a waajee jëm ci màggal gi biñ ko ko waxee dafa ne loolu day liggéey bu rëy la boo xamante ne nee na jëlale na yoonu murit jëlale na réew mi waaye mën naa lijjanti lislaam bépp loolu nag dal na xel yàlla na ko fi yàlla yàggal ndax xam na xasida yi te xam na ne xasida yi moo mën kenn mënut ginnaaw loolu ñuy jottali ay nuyoo sunu kilifa yi tedd yi nga xam ne mooy njabootu sëñ Touba kenn desut su ma tuddoon sëñ jiili mii rek mel na ni mat na waaye am na ñeneen sax ñoo xam ne ñu ngi ñëw ndax jataay bi daf leen soxal ñoom ñëpp ni mu soxalee Cheikh mun Mountakha kon sëñ ji li ñoo ngi lay ziar di la dalal di la di la wax ahlan wa sahlan di nuyu nag mboolem élément kuréel yi maam ñi bokk ci kuréeli xasida yi ci Hizbut Tarqiyyah ci biir réew mi bitim réew bu dee bitim réew moom ñi nga xam ne accès gu ñu itam fii ñu toll nii ñoo ngi connecté di jokkoo ñun ndax ubbiwuñu ko ci euh, réseaux sociaux yi mu doon loo xam ne dafa yaatu waaye dañ cee def benn réseau bu fermé boo xam ne genre intranet la boo xam ne ku ñu bëgg nga dugg ci ñun ñoo la ciy dugal waaye ku ñu bëggul nga jot ci doo ci mën a jot loolu def nañ ko di leen sant it ci mobilisation bi ñu def ak teewaay bi ginnaaw loolu ma ubbee rek fàttali sama bopp fàttali leen ne leen nguur a mayuñu lii ñu am noo ci liggéey bi nga xamante ne benn liggéey gënu koo màgg ci yoonu murit benn liggéey ëpp ko ak ëpp ko dayoo ci yoonu benn liggéey ëpp ko njëriñ ci yoonu murit képp ku ci nekk di ko def nanga xam ne li ñu tuddee teranga li ñu tuddee tedd nga li ñuy tuddee ak kewe lépp mi ngi ci biir bul ñee kenn bul xebat kenn bul xool kenn xamal ne yaa ngi ci li nga xam ne ni ci nuus te xam ne ni ko war a téye rek moo war a doon sam xel ak say xalaat mooy fonkeel gi kon ñu ngi sant ñëpp lii wane ne lu ñu baax ñi daan wut nit ñu baax ñi lañ daan wut di ci sonn di tukki di tumuranke lu ne ñu ko daan daj ngir am ko ci sunu borom mën naa koo tënk ci ñaari baat benn bi mooy baatu wusool mooy yegg ci yàlla benn bi mooy baatu ngërëm mooy am ngërëmal yàlla ñaar yi yëpp sëñ Tuba defal nañu ko ci biir xasida yi ñu ànd ak moom te sax duñ ko xam ndax xam gi day tax nga naw sa bopp wala naw sa jëf waaye umpale gi mooy tax saa su ne nga di ko sàkku moo tax murit bi sëriñ bi nos ko ci euh, koo xam ne saa su ne mi ngi sàkku ngërëm xelam du ci dal mu ndaree du dañ koo tëral ci jaat mu jàkkaarloog seexul xaddim loolu nag lu màgg la lu sëriñ bi nosee yoon wi la loo xam ne moo tax li nu am du nu du nu rëcc mukk saa su ne dañ koy yor te kenn duñu ko mën a xañ sëriñ bi wax na ne yegg ci yàlla moom xasida yi ci gën a gaaw tuwassilu axlaami ilallaahi aabidan bila xalwatin wallaahu abxaa kama axna nit ñi dañ daan dugg xalwa ay fan di tumuranke di daj lu ne ci jaamu yàlla ngir àgg ci suñu borom yow nga nekk ci sa place di commerçant wala nga nekk ci sa liggéeyukaay di liggéey waaye bu waxtu jàng xasida yi jotee nga teewulu jàng xasida yi soo ko jàngee sellal ko mu ne da lay jëlee ci fii ñu ne yóbbulu ba fa sunu borom kon al wusool mi ngi ci biir mu tekki yoosilu xatti man yuridu tarbiya wa man li rabbihi yuridu tarxiya tarbiya ak tarxiya lépp ci biir xasida yi loolu it war nañoo sant yàlla ndax jamono dafa toll woon foo xamante ne seytaane ay ngànnaayam ba mu ko génnee internet bokk ci ku ne xam na ne ngànnaay yi seytaane ci jamono ji dafa mel ni ñi yoroon daaray tarbiya xaw nañoo jaaxle ndax ak tarbiya dafa laaj beru ak tarbiya dafa laaj nga ni si feet sore xumb xumb yi sore lépp loo xamante ne moom mooy yàqu-yàqu jamono ngir nga mën a yar sa sa sa njaboot ci ak njub yar leen ci jikko yu rafet waaye tey jii seytaane dafa am jumtuwaay yoo xam ne boo nekkoon fa gën a sori mu fekk la fa ak ay yàqu dem mu fekk fa ak ay xalaat yoo xamante ne di nga gis xale bu ndaw boo xamante ne juróomi atam matagul mu mën a jëfandikoo internet kon ngànnaay yooyu seytaane yor tiital na ku baax ku ne mel na ni tey jii ñu baax ñi fi nekkoon ci jamono. bi ñu gisee loolu seen fit rëcc na ñu ne waaw ñun liggéey bii ñu sunu borom dénk muy jubal nit ñi gindi leen jëme ci sunu borom fan lañ jëm nekk de sëñ Tuubaa fàggu na lépp nekk de sëñ Tuubaa fàggu na lépp waaw ndax yuusilu xatti mbindam la wax man yuridu tarbiya kon li nga waroon daj ci tarbiya mu ne jàngal xasida yi wa man bi rabbihi yuridu tarxiya li nga xam ne tamit yow mënoo ko mënoo nekk ci tarbiya waaye tarxiya ci lañ lay jaarale moo tax sëñ tubaa moo def ci ñun bëgg lislaam moo def ci ñun bëgg sëriñ Tuubaa moo def ci ñun loo xam ne dañuy jékki-jékki di soppiku te ñu xam fan lañ jaar ba soppiku moo tax kuy jàng xasida rafetal njott ci moom bul ñaaw ci moom mu jot mukk ndax la koy soppi ak la koy def nit ku baax yow loolu sa yónnewu ci liggéeyub sëñ Tuubaa la kon jërëjëf Seexul Xadiim mu ne ilaa tawaalif yi yaquudullaahu asraara laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah mooy lislaam mun ne mi ngi ci xasida yi yamu ci de xare yi nga xam ne yonent bi saa salaam muy gazawaat yi dafa àndoon ak saxaaba yi ngir yëkkati lislaam ngir ubbi lislaam def ay futuhaat lool lépp mun ne jaratu ko gars yi yéefar yi lu ñu waajee ak nu ñu waajee rek bàyyi nañ leen te góorgóorlu ci seen bopp fexe leen ba defaru rek waaye ñoom li jëm ci ñoom maa koy lijjanti ñu ne ah mu mel ni jaaxal na ñëpp mu ne naabat kitaabati lada llaahi jamil an al ibadaati wa anhu la tamil yamu ci daal di ne mu ne naabat kitaabati anil xitaali loolu kii maanaa la mooy mboolem xare yi nga xam ne nit ñu baax ñi daan nañ ko def ngir yëkkati lislaam sëriñ bi nee na jaratu kon ñun nañ xam ne lii sëriñ Tuubaa wax ci jësbul xulóob ne bii xani naa lil jinaan an xaswatin wa an hawaan bii la naa taaba zamaan maa xabul xiddami nee na keroog keroog ba xaswatu badrin jàllee ci la lislaam lépp lijjantiku na tey na te mënees na cee am ngërëmal yàlla te benn gàllankoor du am kon loolu def na ko tey lii lépp nag may ubbee jubluwuma ci dara lu dul ñu xam ne liggéey bu mag la yor boo xamante ne yëg ko ak xam ko ak teewlu ci xam nan lañ ciy sàkkoo ngërëmal yàlla ak nan lañ ko amee te ci pas-pas bi la loolu rek laa bëgg ñu bàyyi ko xel ma def ab jukki rek ci lu gàtt sax ndax dama koy tënk ni ma mën a waxee ne liggéey bi lislaam la te mi ngi tàmbalee ci suñu maam aadama ba ci fii mu fii mu toll tey euh, dafa am liggéey bi ñaara ko seq kenn ki mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kenn ki mooy noon bu mag bi mooy iblis ñoom ñaar rekk seq liggéey bi koo gis muy anbiyaawu ak mursaloon yi ñooy njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa ñooy kilifa yi jiite njaboot gi di taxawu waaye noonu la amee gouvernement boo xamante ne it moom Iblis ku bon ki moo leen di liggéey loolu ku ci ne nag sëriñ bi wax nañu sa pas-pas bu ngeen jàngee xasida gi ñuy wax euh, mu nawir dóor da daal manazil wa inda dóor mu nawir dóor nga dem ci bayit 168 ba bayit 208 na ngeen ko déglu bu baax jàpp ko ngeen dem xool ko sëriñ bi mi ngi ko bindee defe naa ci jamonoy gànnaar waru ko sore waaw da lay wax manfaatil habibil amin maanaam yonent bi ay njëriñam waaye madarratil aduwi allazi yamin muy tamit loru iblis kenn ku ci ne sëb liggéey wax na ko boo jëlee masalan Euh, yonent bi saa sam dafa naan la bokk na ci ay njëriñam daa bëgg jariñu bëgg jariñee waaye iblis da lay wax ne la daa dëddu daa dëddu àjjana jëm sawara waaye bu doon sago mu yóbbaale ci ñëpp te ngànnaay yu mu am dina ko ci def waaye rasulullah sallallahu alayhi wasallam tamit ngànnaay yu mu am dina ko def ci jubal nit ñi liggéey baa ngoo boo ko toppee ay bayit yu bëri la yoo xamante ne euh, meloo rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni mel moo indi tey jii suñu jataay bii moo indi tey jii liggéeyub seexul xaddim kon xaside yi dama bëgg ngeen xam ne waxtaan wii biir néeg la waaye ñoo ngi ci ñun ñii tey ji dañ naan lislaam bu yabalee ñoo xam ne ñoo koy demal xare ñoo ngi nii na ñëpp lëkkati seen loxo te yóbbuwuñu benn ngànnaay bëgg sëriñ Tuubaa ak di ko liggéeyal ci xasida yi dañuy yóbbaale kon nag kuy demal lislaam foofu nga waaj te waajtaay wi lenn rek la sell dëggu ak njub la kon loolu duma ci sori boo gisee waxtaanu Cheikh Mouhamadou Mountakha xaw ma kan moo ko déggul de waaye ñun dañ ko war a dégg su ngeen dégloo at yi yëpp day wax ne xas du wajhillaahi rek jublu yàlla suñu borom jëmmam ji te nee jublu gi mënta ne ndare du dañoo futtiku ci mbubbum àdduna àdduna moom ak alaxira moom mu ne su leen a denc ndoo mi ngi mel ni nga denc soxna ñu ne la kay denc ndeyam mënta ne wala nga denc ndey ji ñu ne la kay denc doom ji xel du ko xalaat kon ñaari àndul ku ne mën na leen a boole xamagut fi mu jëm xamagul nu muy waaje te fa mu jëmit dafa mel ni amu ci yàqin li ma ciy tëje mooy nen góorgóorlu ci sunu diine ndax dañ ñoo bind ngir ñu jaamu yàlla sunu borom waaye itam nen góorgóorlu ci sunu taalibe ndax sëriñ bi moom la moom la ñu yaakaar tey moom la ñu yaakaar ëllëg te lim ñu dénk yorloo ñu ko téyeloo ñu ko mooy sunu taalibe li ma ciy teg mooy ab tënk rek ci fi xaside fi kuréelu xaside yi jaar am na lu ngeen ci seetaan léegi nañu xam ne biir université ndakaaru jàngukaay bu mag boobu yàlla dogal na ñun ñoo fa jëkk yëkkati xasida loolu nañ ko sant yàlla 75 76 taxaw ci campus universitaire yëkkati xasida ñëpp wër la ku ci dafa jommi loolu moom isbu tarxiya boobu tuddagul isbu tarxiya waaye daayira des étudiants murit la tuddoon kon foofu dinaa ci ndokkeel ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñoo doonoon les membres fondateurs doon ñi nga xam ne ñoo sosoon liggéey bi ci biir université te buñ ca tuddee sëñ aatu dafa mel ni tuddaale nañ ñeneen ñi ko àndaloon ñëpp nga xam ne tey jii ka jëkkoon nekk président di Serigne Saliou Mboup doonoon ko mënoon a jàng xasida itam euh, ak ñeneen ay Babacar Guèye Babacar euh, Mbaye ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne suma ma limee damay juum ñoom sëñ Lamine bu ñu indee photo archive bi dinañ leen ko wan ngeen gis leen ndax ñooñu war nañ leen di ñaanal saa su ne ndax tawfeex ci ñoom la jaar. bu ñu weesoo loolu nañu xam ne jamono yooyu jàng xasida sax ci mën koo jàng ci arab nii bismillahi yan muluhaa yi nga gis ko nii xasida gi jàng ko boobu barewul ci ñoom ñu ko mënoon dañ ko daan bind ci français xasida yi dañ ko daan bind ci français maanaam caractère français lañ daan jël xasida gi bind ko ko ngir mën koo jàng ndax doonul woon ay niti daara yu dem université waaye ñu sëñ Tuubaa def ci seen xol bëgg ko liggéeyal mu sosoo ca biir université ñooñu ñoo tàmbali lool. waaye ba ñu amee daara 1981 ba ñu amee daara rek ci la yëf yi tàmbalee soppi ko ndax daara dañuy def boo jógee université lay taxawaalu taxawaalu ji amatul da ñëw daara ci boo mënul woon liir ñu tàmbali laa jàngal nga fer ij loolu di dox tuuti ñu tàmbalee mën a jàng alxuraan di bokk ci kaamil bi donte benn benn jukki nga yor yàgg ci lool ci njëlbeen gi waaye bi ñu doxee tuuti mujj na demeetul noonu bi loolu tàmbalee nag ci Sicap Ridis ci lañ tàmbalee nag ñetti xeeti njàng mu amoon dama bëgg ngeen xam ne daayira étudiant murid bi muy ñëw lu jiitu daayira étudiant murid ñetti xeeti kuréel xaside yi ñoo fi amoon njàngum kenn ak njàngum aw amoon na waaye ñetti kuréel yi nga fi fekk kuréelu sëñ Massamba mag ñi fi desoon ndax man sëñ Youssou Ndaw sax interviewé naa ko kon ñu fekke nañ ci ñenn ci mag ñi sëñ Mayib Guèye yàggul ndax yàlla may na ko mu gudd fan ba jàngal sëñ Abdoul Ahad kon euh, kuréelu sëñ Massamba moom mi ngi fi woon ñaareelu kuréel bi mooy ñoom mooy kuréelu sëñ Abdoul Ahad ñoom sëñ Mbaye Niang ñoom Mbaye Mbaye Niang kuréel la woon waaye kuréelu Daaru Muxti tamit kuréel la woon ñetti kuréel yi kuréel yu mag la woon yoo xamante ne daanaka boo gisee kuy jàng njàngum kuréel mag lay doon waaye gone guy jàng njàngum kuréel amutoon loolu nañ xam ne lu am solo waaye sëñ Abdou Lahad dafa def ab liggéey bu mag mbooleem ñi fi toogal sëñ Tuubaa it def liggéey bu mag ci wàllu njàngum xasida sëñ Abdou Lahad moo jëkk a woolu sëñ Mayib Gueye ne ko wuurub sëñ sàmba bi doon jàngal sëñ Tuubaa ndax am na ñeneen ñu ci mu ne ko menn man dey maa ci des fi mu toll mu ne ko dax mën nga maa jàngal xasida yi ngeen daan jàngal sëñ mag bi ca nam yéen ko daan jàngee te dara du ci soppiku mu ne ko waaw mu ut magnétophone bu bees jox ko sëñ Moodu Maamu Ñang mu teewlu sëñ Mayib Gueye jàng band yooyu ngeen di dégg yëpp mooy mu xaddamaat yeeg juróom-ñeent yeeg jës boog ay bismillahi lazi euh, euh, quraanu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mooy jàng mi nga xam ne moom ngeen di roy tey ci kon seen blaat moo nu dimbali bañ jotee ci loolu moo tax ñu mën koo roy yàlla ko yàlla fayal ci barke Sëñ Tuubaa yamul foofu ñu ànd ak ci njàng bi ànd moom ba ñëw ci jamono yi sëñ Abdou Khadr boobu nag fekk na kuréel bi mi ngi tàmbalee mën ab liggéeyam liy wane ne mi ngi mën ab liggéeyam sëñ Saliou Mbacke mu tedd mi moo ñu ko nettali nee na am na bés sëñ Abdou Lahad Mbacke sëñ Saliou euh, sëñ sëñ Abdou Khadre nekk fi ngeen di ko jàngal guddi ma bi mat dégloo njàng mi ndax boobu dañoo branché ay rajo kër sëñ Abdou waaye bi mu dégloo njàng mi këram nee na. li ma mës a daj ci xaside yi ak li ma ci daan sonn ak la ma ci bëggoon mu mel ni lépp suñu borom dafa def mu daje ci ci njàng boobu suuf saa ngi sedd ndax guddi la ginnaaw gee waaye sëñ Saliou nee na boobu de dama damaa topp sama ginnaaw kër rek génn nga xam ne kenn gisuma dem ba jege kër sëñ Abdou Khadir ci foo xamante ne fu fu fu laqatu la ma toog fa di teewlu njàng mi moom sëñ Saliou moo ñu ko nett yàlla ñu ko yàlla fayal te boobu lam ñu doon wax lu mët a dégg la daf ñu doon xamal nañu li tax day woow ma leen ngeen jàngal ma boobu dama jàpp ne yoon wi ni mu nosoo mooy ki war a jiitu jiitu ñi ci war a topp topp ci boobu jàpp na ne amul sañ-sañu woo ñu pour ñu jàngal ko kooku moo mën a jàngale ak taalibe yàlla ñu ko yàlla fayal ci barke sëñ Tuubaa bi sëñ Saaliwu ñëwee nag ñu ànd moom ci njàng mi moom daf ñoo tokki ci njàng orienté ñu ci njàng ñu ci am njàng ba njàng mi àgg foo xamante ne moom daf ñu mujj jël nañu dama bëgg sama daara yëpp ngeen wër leen di leen taxawu ci am njàng mujj na si aatu yàlla ko yàlla suñu borom dolli yërmande ak njëggal taxawu ko bu baax di ko fay ci barke xaside yi bobu dafa xam bëgguk sëñ saliw xam ne bëggul lu soppi daaree tarbiya ba nopi ta band yi nga xam ne moom la ñu war dongo yi dañ leen wara outal magnétophone yo xam ne du am radio ndax sëñ bi boobu bëggul radio am ci daara dañu commander États-Unis ay radio yo xamantene magnétophone rek la di jang di won dongo yi nan lañuy jangé nan lañuy xajé xàjjee ni ko sëñ Bas mii di faral di défé sëñ bass gis na ni mu ci son lool am na solo loolu ñun ñoo ko jëkk a def def ko daara yi sëñ Saaliw yi nga xam ne magnétophone yooyu la ñu leen séddale woon daara yëpp ko sëñ Saaliw ànd ak ñun ci dolli ci wàllu comité pédagogique moom moo jiite woon comité pédagogique bi ndax la ca jiitu moo ñu jox bandu sëñ Cissé sëñ Alaaji Cissé muy rum naa ak wala xadd karam naa jox ñu ko nga xam ne bañ koy jëkk roy defe naa ñoom sëñ doxaane eh, mii ak ñoom sëñ Moustapha Ndiaye xam nañ ne bañ koy jëkk roy ni ñu ko royee woon xalaatuñu woon sax ne copie conforme lay doon béyit par béyit ñu toog ci eh, nga xam ne dañ koo jàngoon systématisé daañu ne lii mooy xaj lii mooy rim bi lii mooy xaj bi lii mooy yëkkati bi noonu lañ ko jànge woon naa bi sëñ Saliou di ñëw 92 wala 93 ca daara nga xam ne moo nekk fii ci ginnaaw asalam yi ba muy ñëw foofu boobu bañ koy jàng ci systématisé boobu lañ ko jànge woon waaye bu ñu doxee tuuti yàlla dimbali ñu conservatoire bi ginnaaw dafa nosu woon ñu tàmbalee xalaat ni est-ce que mënuñoo roy Sëñ Alaaji Siise béyit bu ne ñu jàngee ko na mu ko jàngee loolu ci lañ ko jéem yàlla defal ñu tawféex moo tax léegi loolu bunt boobu ubbiku na taxawatu waaye si Saliou Mbacke daf ñoo wax nañu xasida yi njanaaw la ñi koy jàng ñooy laaf ñi koy déglu ñooy dunq yi njanaaw nag lu jëm àjjana te sëñ Touba moom ko buy dem day yóbbaale laafi yi day yóbbaale yi loolu kon xasida yi nañ xam ne mooy sunu kerkeraan waaye moom la ñuy war itam ngir mën a dem fu nga xam ne mooy kër gu mujj ga ci Daaru Salaam ci barke sëñ Touba boo jëlee boo jëlee njabootu sëñ tubaa gi nag sët a ah ñu ngi sant ndax sëñ tubaa boo amul xam-xam sax mën nga ne la daloon mag ngi ba ñu gisul sëñ bi ñu lay ne a ah, sëñ bi comme nekkatu fi day a ah, léegi de ku yabu nangam kooku ku jannaxe fàtte ne sëriñ bi am na lu ko suñu borom may ab xaani yallaahu lil muxtaari mujizatan kama bihi li sama فوق فوخال بورا خسارا ني الاسراء والمهراج نيمو دوني معجزات نون لا ليغي سيغ توبا دوني معجزات بو خامني دوكو اتشي نوبي نا غيس بي ولا نوبي نا دومي سيغ توبا اديول فو سيرين توبا مو في ني يور ليغي بي سونو بوروم بوكو نوبي غيس دال موم سيرين بي جابال ني كوكو وو سونو بوروم موي ويو لولو موي تنك بي غينا غات سيغ باغي فيك نيكو في لولو بولا ناري سونال نيل كوكو وو دال سونو بوروم لا يويو loolu mom la seigne Muntaxa wax motax nañ ànde won ak seigne Mamadou Lamine Baara ko ak Cheikh Sidi Mokhtar ko ak Cheikh Mamadou Muntaxa mi yalla taxawayam yag lool dama and ak wér kon loolu wané na né liggéey bi di liggéeyu khasside yi ndimbalal yalla la lo xamantene daf ñu koo defal waye nak bo amé lu bax da ngay xam noo samé mo waral jataay bii boo lu bax te mu wëlal ku bëgg mu mel ni suñu borom defal na la ci xaas dangay xam nuy góorgóorloo ba li nga yor nga mën koo sàmm ba saa su ne muy dolliku waaye du dellu ginnaaw mukk ci àdduna tey jii yoonu murit boo xoolee fii ba réew yi gën a sori kuréel boo gisati foo dem am na kuréel waaye kuréel yooyu yàlla dogal na bu ñu leen di fay ñun dinañ ci mos ñun ñëpp dinañ ci mos loolu li ko waral mooy jëmbat garab goo xamante ne day am ker ku ci ku ci ku ci jaar taw feex ja nga ci am tuyaaba ja dina ñëw ci ku ku fa jàng alquran pey gi dina ñëw ci ñun loolu moo nu dab ci xaside yi liggéey boobu nga xam ne ni nga xam ne wuurub sëñ Masamba bu njëkk ba lu way amati ci ci ci ci xasida seen pay fekk leen fa noonu rek la demee ci nii waaw ma ñëw tuuti ci ay dénkaane yoo xam ne dafa jëm ci lu tuuti li nga xam ne xam naa ko ci njàng mi ko defee bu ñëwee ba ci kanam sëñ ak kilifa yi nga xam ne dañ leen a woo te dara taxul ñu woo leen lu dul ngir ñu dénk ñu ñaax ñu soññ ñu ndax li nu weesu gestu ko taxul ñu daje de li ci sunu kanam nun koy songee ndax kii ñu àndal muy Cheikh mun taxa ku am xasda la ku amuk jublu la ci yoon wi fa mu jëm ku ànd ak moom nag war ngaa fexe ba àdduna bu mu deseti sa xol nanga fexe ba liggéeyal sëñ Tuubaa rek na ko def ci sa xol su ko defee li ci des yëpp ay ay jumtuwaay lay doon nga mën cee sukkandiku ngir mën a jëm ci sëriñ bi li may jëkk wax dafa jëm ci répertoire xaside yi kuréel yi bare na kenn ku ne yaa ngi jàng xasida goo yaakaar ne kenn jàng ko rek nga bëgg a daw wutaliko dama bëgg foofu ñu am ci dalil ñu am ci yoon wu ñu jaar du caagi ne xasida goo jël rek nem ne wecceeku naa xasida gii musuma koo gis rek ñun suñu kuréel na ko jàng loolu nañu moytu loolu ndax yoon wi dafa nosu sëriñ bi xasidaam yi am na lu mu bind téye ko am na lu mu bind denc ko am na loo xamante ne nee na sax ak feeñam lu dul bés pénc loolu moom nee na moom fàddu na mënta kon nag léeg-léeg mu bind jox nit loo xamante ne kam ko jox loolu firiwul ne ñun sañ nañu luñ jotee ci nit rek daay na dañ koy jàng waa kër sëñ Tuubaa yi nag ñooñu jiitu ñooñu raw ndax seen yitte dafa dafa dafa sori boo jëlee diiwaan yi sëñ Abdou Lahad da ko toppalu ba mu leer nañ mu def ci liggéey bu rëy muy ay diiwaan nga jël Serigne Saliou liggéey bi mu ci def nga jël tey jii njabootu sëñ Tubaa gi boo jëloon waa Karaamati xattu yedd nga jël sëñ Alaaji Mbàkke wala nga jël eh, eh, sëñ xam wala nga nga xool njabootu sëñ Tubaa googu di liggéey ci wàllu xasida ñoom xam nañu li ñuy def fan nañ ko teg loolu nag lañ bëgg wàllu jàng mi ñu koy teg ci fañ ko war a teg mu wóor ñu ne ñun toxalee nañ ko fañ ko war a toxalee mais bu ñu sosal suñu bopp li ma ciy joxe waat firnde man dégg naa sax koo xam ne jàng na moyen bu boo xam ne boo bokkut ak moyen bu bisi yu bii nga xamante ne moom lañu ñuy jàng di nga gis koo xam ne mën na la jàngal geneen xasida goo xam ne Fawzeyni boo xamante ne mën naa am daa jiitu sa Fawzeyni bii ñu miin ngir wane rek ne am naa beneen bu bees bu bokkul ak kii loolu warta doon xasida warta doon suñu jublu suñu jublu mooy dañuy leerlu ba mu wër la ni cëng ne li ngay def war nga koo def nga door koo def ni ko sëñ bi waxee ci uq ci gaa yu baax yi minha tawaqufu an xawlin wa an amalin xataa yarawu saxiixan foo mu leer la ne lii war nga koo génne wala a koo génne ndax ñu fëgg ñu jël sa loxo ne la lii nga def ni foo ko teg loolu as murit da ko war a moytu waaw ndigal daal la la la war a la a taxoon loolu it moom laa doon am lu may wax ci répertoire xaside Euh, am xasida yoo xamante ne li tax kuréel bu ne dama gis ne kuréel yi am nañu conseiller pédagogique conseiller pédagogique moo leen di wañ ne daaj bi nii la rim bi nii la loolu wàllu daaj la mais wàllu xam-xam da ngeen koo da ngeen ko desee teg fi ngeen ko war a teg léeg xam-xam bi dafa doon lu mënta ñàkk ndax ba tey ñoom sëñ Moustapha Ndiaye doyen yu mag yi ñu ngi fàttaliku ne daan na am koo xam ne mën na jàng lool baatam neex na lool waaye ba ñuy tàmbali kuréel bi dañ naan la foog nga jaar formation islamique maanaam ñi lay jàngal téere xam-xam yi ñu ñu wane ne fer nga ij ñu wane ne doo jaxase araf yi waaw doo doo doo jël xayn di ko jaawale xaalonk doo ko jaawale xaaf yooyu yëpp dañ la ciy formé loolu mënta ñàkk ni ma ko mën a waxee di nga ci jël koo xam ne day jël xasida goo xam ne dëgg la waaye durus ko moo gën yam ci durus ko moo gën toog ak sëñ tubaa donte wala nga toog ak sëñ sëtu sëñ tubaa donte maama ma ko wax nga toog di ko jàngal loolu baax na waaye sëriñ bi léeg mu jëlee ni muy yeddee boppam ci digganteem ak boromam noo xam ne day diis ba nga xam ne yóbbu ko ci téere xam-xam yi léeg-léeg day tane yóbbu ci téere xam-xam yi ngir xamee ci nan la ñu toroxloo ak nañu waaye léeg-léeg mu metti lool ba àgg foo xam ne kuréel yi dañu war a am ñu leen di euh, gindi du ma ñemee tudd sax naan téere sàngam téere sàngam waaye dama bëgg rek ñu am dalil di am ay imam di am ay borom xam-xam yoo xam ne dinañ leen gën a dimbali ci wàllu téere yi nga xam ne moom la ñu jàng léeg-léeg it xasida tàng lool doon loo xamante ne mi ngi mel ni senegal su su am réew amee jafe-jafe ba woo armée bi ñu génne seen ngànnaay yi gën a rëy ah yooyu du yëfu gone de dafa am yoo xam ne taxawaayu nucléaire la taxaw nucléaire doo ko jox xale mu koy fooye di nga gis koo xam ne euh, loolu da ciy feeñ moo tax ma ñu xam ne xaside am na yu waa kër sëñ Masamba daan jàng xamees na ko am na yoo xam ne mag ñi doon jàngal sëriñ bi moom lañu daan jàng nañ koy jiital ci xaside yi nga xam ne moom la ñuy jàng jàng wi kuréel la dolliku na doon loo xamante ne wuur nañu ne ndax ñi daan jàngal sëñ bi ci mag ñi bare na waaw nañu wóor ne teg nañ ko ci yoon wi nga xamante ne moom lañ ko war a teg loolu laa ne woon naa ko ci wax ci buntu boobu nga xam ne mooy répertoire u xasaayit ñaareel bi mooy daaj yi daaj yi moom dama bëgg ñëpp gën a jiital maanaam jiital li ñuy tuddee originalité maanaam la nga xam ne wuur yi daan jàngal sëriñ bi wuur bi daan jàngal sëriñ bu mag bi lañ daan jàng nañ ko jiital mu gënal ñu ci daaj ñëpp ndax bari na daaj yu ñu fi sos mu xewwi waaye loolu de du xewi moom ndax ku baax ki da dégg ci noppam lu ci bari it moom moo ko nosoon teg ko ci yoon am loo xam ne moo daan takk ndiggam ci géej gi di wax ak boromam di wax ak rasulullah sallallahu loolu kon dafa mel ni ndimbalam moo tax ñu jote ci ndax sëñ Mayib Guèye mooy bi bi ngay dégg mu jàng ko rek ndeme ci biir na koy soppee daaj boobu nga xam ne mooy daaju mooy bu bii bi bi ñuy wax te soxna May daañu ko jàngaloo tuddee woon ko mooy bu njaareem bi ku ne xam ne sëriñ bi nee na xasida gi ak daaj bi ñoo ànd ñoo wàccandoo loolu kon lu am solo la ci joo xam ne moo jiitu ci daaj léegi soo weesoo li nga xam ne daanañ ko jàng ci kanamu sëñ mag bi doo fa yemale conservatoire mën ta yem foofu ndax jamono day dox xereñ tamit dafa am waaye xereñ nag laa bëgg ngeen utal ko ay nattukaay utal ko ay hudud yoo xamante ne mooy tax xereñ gi du mel ni saayir da ci dugg wala lu ci bokkul da ci dugg xereñ gi li ci jiitu mooy nit ki day xam aarul peese peese xasida yi boo ko xamul tey jii di nga jël daaj boo xamante ne tawil la nga bëgg ko adapté ne dama koy def daa ju basit su ko defee yow araf yi ngay yàq ci biir day bari lool te doo ko xam ndax da ngay arrangé ba dem rek kon yow way wee la intéressé waaye jàngal Serigne Touba intéressé wul loolu baaxul PC bi soo daajee gis ne am na araf woo xam ne da nga ko waroon a xëcc nga gàttal ko te mënoo ci dara ndax daaj bee la imposé loolu wala araf woo xam ne da nga ko waroon sadda waaye mënatoo ko sadda ndax ndax daaj bee la ko imposé xamal ne daaj boobu du daaj bi ndax daaj bi dafa war a dëppoo ak peese way bi xeeti ba yi dafa bari bokkul waaye léeg-léeg nga mel ni bu mën a jël bi wëlbati ko fii mën a jël bi wëlbati ko dan waykat gis nga loolu dañ ko moytu ndax Sëriñ Tuubaa la ñuy jàngal te xasida yoo xam ne boo koy jàng mën lawul laa teew na xam ne fettu yi nit ñi lay wër fett su yi ñu fett su bokkul ak fett su waa malawul laa laa bokkul léeg-léeg mën naa sax safaanoo nit ñi kontaan te ñiy kontaan ci yow boo moytuwul waykatu saayir bu wayee léeg-léeg ñu yëngal seen tànk tuuti baylaat bi nag mooy tax duñ ci mën a sore waaye léeg-léeg ñu def tuuti loo xam ne da ngay xam ne saayir si des na ci seen yaram kon ak defaru bu mët sëkk àggaguñ ci nañ xam ne ay dong lañu nekk ci jamono di dégg loo xamante ne ñoo ngi koy dégg te suñu yoon nekku waaye waruñu koo roy leneen li ma ciy dolli nañu moytu ci daaj yi mel ni kuy xëccoo ci wàllu indi naa daaj bu bees loolu nit ñaa ngi ci yóbbu nañ ci nañ xool nañ ci génn complètement nañ ci génn complètement ndax indi nga daaj bu bees kii ne Khalil Gueye de moom indi na indi na ñaar de si Rufisque tamit daañu ne wuy fu ma jëm Cheikh naa Diagne ne man tamit indi naa ñett keneen kon mu ngoog ak sëñ kan sëñ jili sëñ jili ne indi naa juróom <laughs> kon na ngeen xam ne loolu li muy baax baax baax mën na ci am waye na ngeen ko na ngeen ko taaraar segg ko segg segg ba nga xam ne léegi nit ñi sax day génn seen xel ndax njàng mi teewlu gi teewlu loo nit ñi moo ëpp doole fett nit ñi maa ngi fàttaliku keroog rek bis bi nga xam ne mooy bisu xaside yi nga xamne ne dafa sel lool tege ci yoon kuréel yi ku ci ñew jang lepp tege ci yoon ñu dem ba ci ngon gi amna ben jankatu kenn buñ jox mu jang jang mu aw yoon mu am keneen ku jël waye ba mu jangé ñetti bayit baas bi bëgg xar yépp tepp mais amna ku ñew ne ko daal nangu micro bi parce que jotaay bi dafa tollu won ci tewlu fo xamantene ne da ne yow malaika yaa sa biir mais boo ci dugalee am po dootuñ fa toog dootuñ fa toog kon loolu nañu nit ñi ñun suñu baromètre ak suñu nattukaay bu mu doon nit ñi fett su tey jii bu bees ñëw na déedéet na doon teewlu gi moo tax ren ne leen wër ne ba baasu bi nekk si buntu kër sëñ Fallou fañ daan def eh, jàngukaay bi ci digg bi lañ daan def podium bi dama ko jëlee foofu yóbbuko ca penku ndax ñi ko daan féete penku di durus bu njàng bi tàmbalee fett yi commencé ñoom ñëpp dañuy wan ginnaaw penk jublu kuréel bi loolu nag bëgg xasida yi la ko bëggee tere yow mi leen koy tere yaay am yaay am problème moo tax njàng mi laa jël ñu yóbbu ko ca kanam ca penku ba su ko defee ñiy teewlu ñëpp ci seen ginnaaw la ñuy ne jublu penku yor seeni xasida ren itam ñun ñii xam nga ne ñi jàng xasida rek te ñëpp teewuñu ndax jataay bi tey am na ñoo xam ne xat-xat a tax ñëwaguñu am na ñoo xam ne ñu ngi ci yoon di ñëw waaye boo xoolee salle bi ñii ñëpp bu ñu demoon ci mbaarum ñu nekk mun buntu ko sëñ Fallou daanaka léegi ñu commencé fees salle bi kon képp ku bokk kuréel bokk nga culte ñi durus xasida ci nga war a bokk ëllu xasida moom ñun nañ xam ne ci lañ bokk ci durus ci lañ bokk ci yëkkati waaye jàng ba noppi rek fi sa kuréel jàngee ba noppi nga la di jóg rombaat nit ñi yëpp ne ma kaay ma dem loolu moom ñëpp waxuma la nañ ko rus waaye nañ ko jomb ku koy def kay xanaa na doon ko takk ndigam ndigam comme njaga njing njaga juuf njaga njing comme njaga njing bu daara Dakar wala am na fépp koo xam ne bu jàngee ba noppi moom takk na day séddale café day séddale ay ay ay berne wala koo xam ne day takkaat ndigam ne man sécurité laa bokk damay dem garde yi waaye bu dul loolu moom ñëpp war a doon ñoo xamante waaye pare jàng ba noppi dóor sa benn gestionnaire génn romb nit ñi di am leneen looy defi toog jàng xasida ko gën loolu moom dama bëgg ñu jàpp ko li ma ciy dolli mooy lu jëm ci support yi maanaam xam nga njàngum xasida dafa am yu mu àndal yoo xam ne faw ñu ci sonn xam ngeen ne am na kii pupitre yi maanaam yi ñuy teg xasida loolu dañ cee war a sonn mbind mi mbindum xasida mi ndax dañuy dem rek dem ci fi ñuy wecc koo rek dem wecc ko ay xasida rek ñoo commencé jàng léeg-léeg nga jàng ba mu yàgg gis ne xët wi dañ ko wëlbati loolu loolu mën naa ñàkk loolu mën naa ñàkk donc faw ñu xam ne juntuwaay yi mënta ñàkk euh, fi ñuy denc xasida yi balaa ñu ciy wax nañu wax ci li nga xam ne mooy mbind mi gis ngeen bésu xaside yi keroog am na kuréel boo xam ne ay murit saadix lañu mokkal alquran bind alquran kaamil ñi ñaari yoon ñi ñetti yoon daal di daje bind ay nooru daaree ni bind nañ téeméeri nooru daaree ni ba mu àgg boole kook yeneen xasida loolu tey jii ma nga ca daara ja sëriñ Hamsatu Mbakke dénk ma ko ne ma denc ko bu ñu tolloo ci war koo jébbali sëriñ bi maa ngi yow ñooy ànd dem ci sëriñ bi loolu ñooñu bu ñu leen ne woon tey jii xaside yi sàngam lañ bëgg ñu bindal ñu ko mooy mboole bi kuréel yi di jànge mais dañ ñu koy yeesalal sëriñ jiili mii yàlla nañu ko sëriñ Tuubaa fayal moo ma jëkk wax ne ma man de bu doon sama sago sëriñ bi téere yi ngeen koy jox mu ko yor di tiim kuréel bi du doon mbind moo xam ne photocopie lay doon moom ko njëkk a wax waaye boobook léegi ani waa conservatoire wax nañ leen ko coono biñ ci war a ànd ak jóg dox ko ba bind téere yi nga xam ne moom la yor bind moom am na ñu mu ko mën a booleeg defandoo ko ñoom loolu dafa am solo. na leen macha allah ci euh, ñu am euh, loxo boo xam ne ci wàllum mbind yoonu murid yëpp naw na ko kon loolu ma wax leen ko ne leen liggéey boobu. ku ne man am naa kuréelu xasida te doo sonn ci loolu des na ni ngeen di jongantee ci daaj yu bees kon jongante leen ci ay mbind yu wér ñu ne kuréel bii moo fi indi mbind sàngam kuréel bii moo fi indi mbind sangam loolu kon dama ko ciy dolli jumtuwaay yeneen yi ñoo ànd ba ci fi ngeen di jàngee nit kuy toog toogaay bu yàgg ñu defal la ay yoo xamante ne boo ci toogee toogaay bi day tax njàng mi gën a wér loolu ba waaye toog ci basang wala tok fo xamne dafa deugal ah, xawna metti ci njàng waaw loolu it lu ci bax la yeneen yi yëpp jumtuwaay yi bàyyiwuma dara juntu way ba ci xarala yu bessi limu maye nañ ko ci boole yow da nga yor téré bi ni da nga yor téré bi di jang di ubbi ki yeex la ko jox boko mokalé baana boko mokalul mu melni dinañ di jafé jafé mais amna ay xarala yo xamné ko ci duggal fii ci jataay bi am na ñoo xam ne seen xam-xam ci loolu la jëm xalaat leen ci am na xeeti tablette yoo xamante ne mën naa matale sart yi te waa ji du bës du laal dara day tege ci kanamam te matale na ndax téere bi mbind bi dina dijj amul lu mu ciy laal te benn console mooy nekk fële di ko man boo waree ubbi xët wi moo leen di ubbi ndel ñoom ñëpp ñu ubbi loolu ay xalaat la waaye boole leen ko ci kon jun conservatoire foofu ngeen di xalaat lu ko li ma ci dolli rek ndax temps bi mi ngi bëgg a bari waaye daanaka damay jeexal li ma ci dolli mooy teggi ni teggi ni njàng teggi ni moom dama ci wax tuuti rek waaye borom xam-xam yi ñëw dinañ ci dolli man lu ma ci wax rek dama ko dund ñun demoon nañ ba ci biir sunum njàng ñu tere ku tarde ñëw ñuy puus puusal pour muy dugg ndax toog di jàng wax duma laak di jàng sëriñ bi toog nit ki yéex a ñëw ñëw xool foo xam ne diggante boo xamante ne dugg fa ku ne di puus loolu moom na ngeen ko dindi ba mu set wecc na ko dindi ba mu set te àgg na sax ba war a doon règlement intérieur boo xamante ne loolu da ngeen koy moytu nuñ ko gën a mën a moytu rek moo gën waaw leneen li am njàng war ngaa sell war ngaa set war ngaa doon koo xam ne it saa su ne sa teewlu ci sa biir xol moo ëpp doole lépp nga def ko ndax sëñ taxa li mu ñu doon liggéeyloo ci ci weeru muharam tàmbale ko benn fanu muharam ba ñaar fukki fanu muharam waxoon nañu lu leer ne pas-pas bi doonul woon ngir ñaan ngir mbas mi jóge fi de nee na doon woon ngir ñaan ngir taw bi daal di ñëw de nee na déedéet loolu taxu koon a jóg li ko taxoon a jóg mooy liggéey bu màgg bi nga xam ne sëñ Tuubaa da koo liggéeyoon ci kaw suuf fan yu mujj yi mu nekk njaareem di waaj war a ñëw ci Tuubaa loolu mu ne ku baax ku ne yàlla suñu borom mbooleem ku baax ku mu am yabal na la nga teew muy bés boo xamante ne ñëpp xam nañ ne àjjana am na gan goo xam ne kenn mësta ni moom wàccaayam woowu jóge njaareem ñëw moom leneen ne dañ koy gàttandu moo tax benn bisu xasida yooyu mu waxoon loolu ko taxoon a ba noppi gunge ko gunge bi mooy ñaar fukki fan yi ñu ànd ak moom ba fajar dem julli ji ci jumaa ji loolu ànd nañoo moom liggéey boobu ñaar fukki fan yi bés bu set am na kuréel yu jàng suba gi am na kuréel yu jàng ci guddi loolu mu ànd ko ñun loolu bu ñun bu ko defee te defalaale ko murit yëpp ah pas-pas moo ci ëpp doole ndax yéene yéene ak pas-pas loolu lu ko gën fiite ko amul ndax lislaam loolu moo ci loo xam ne lu mu amul rek du mujj fen kon loolu laa ci bëggoon na dolli nañu moytu kuréel ñu xam ne jàngal Sëriñ Tubaa rek mooy li am solo waaye kuréel boo xamante ne dees ci feeñal ne damaa xaritoog diw tax fu mu bëgg jëmale kuréel bi jëmale ko fa wala diw daa am ngénte ñu jëmale ko fa waxuma ne ware su la jàng xasida ci ngénte de déedéet dama ne day doon loo xamante ne da ngeen koy seq ci wàllu yàlla ànd ngir wàllu yàlla mu doon loo xamante ne day dëgëral ak mbokk mais firiwul ne nit ki loxoom jot na ginnaawam wala mën naa jël ab enveloppe bu bu duun jox la ko tax kuréel bi mën a déplacé wu dem ci moom nañ moytu loolu xaside yi moom kenn du ko yalwaane xaside yi kenn du ko yalwaane sëñ mag bi dégg na nit di jàng xasida njàng mi yéeme lool boo muy laajte kookal la ñu ne ko ku yelwaan la mu ne accam kon nañu gën a bàyyiwaat xel ne kuréel bi moom sëriñ Tuubaa ko moom buñ ko moomale kenn luñ ciy def rek bu ñu sëñ bi laajoon nañ ko ko mën a leeral bu sëñ bi laajoon nañ ko ko mën a leeral mooy la sëñ Abdoulaye waxoon ci lu baax mooy loo xam ne boo koy def doo bañ ku la ca fekk te ku la ca fekk doo bañ mu nettali ko lu bon it mooy loo xamante ne bëggoo ku la ca fekk te ku la ca fekk it doo bëgg mu nettali kon loolu lu baax nga lu bon mooy loolu dem ci barab boo xam ne it barab bu saayire la di jàng xasida ñii ngi waxtaan diriyànke yaa ngi romb fële ñu naan kuréel baa nga ne le loolu ku xam sa bopp doo ko def njàngum xasida dañ koy defee ci barab boo xam ne yelloo naa ak moom su fekkente ne donte nit ko am yéene ci moom la bu doon lu mën a doon ci xew-xewu jamono nga ñëw fekk jataay ba doon jataay boo xamante ne dafa saayire bu ko fa def ndax dafa bokk ci sarti tudd yàlla juloo su abdin fii makaanin taahiri moo ci jiitu aadaabi zikr waaye barab boo xamante ne yow wóor na la ne basak nga nga toog képp nit ñaa ngi cay jaar ak seen dàll diriyànke yi di la romb ah, borom ak kii costume yi di la romb ku la romb sànni la benn cinq mille francs tab dàllam lay jàll ci gaw basa gi kooku xamuñu xasida yi xasida yi moom dañ koy waajal ba mu wóor la ne Sëriñ Tuubaa moo tax nga di ko jàng kon loolu dama ko ci doon dolli nañu moytu itam kuréel yi di jongante ba mel ni jongante bi dafa génn yàlla sunu borom mel ni kii moo mën wala man kii laa faral wala kii man kii laa faral déedéet ku jàngalu neex rek fett ko bul faral kenn faral ak sëñ mag bi moom mi nga xam ne fa mu ko doon bindee kenn newul ci wetam buy ñaanit ku wax ami nit newu fa nit di ko way tey ji mi ngi mel ni nit ku nit ku jël dem ci barabu fowukaay yi toj toj duñu naan ub làmb ba ub làmb ja ak fowukaay kooku bokkagul conservatoire nañ xam ne kuréel la ngi nii yoo xam ne nee naa leen kenn ku nekk ci war ngaa mën a wax billahi lazi laa ilaha illa huwa yi wa mamaati xarakaati wa sakanaati maa seydina muhammad ma alayhi wa sallam war nañ koo mën a waat suñu diggante ak sëñ tubaa sëñ tubaa rek la ñuy liggéeyal kuy liggéey sëñ tubaa nag dangay ngay dëddu am po da dëddu am po mënta mën loolu moom man de mën na maa xajoo ci biir Hizbut Tarqiyyah koo xam ne atum yàlla mënu jox ñaar téeméer kooku mën nañoo ànd ma def ko ni sama jëmm waaye kuy foo moom mënu maa xajoo moom mënu ma ko ndax jublu yàlla màndarga bi mooy da ngay dëddu am po bu dëddu am po xasee am nag lu ci des lépp dañuy womat ndax lislaam ñaari xaaj la bàyyi lu bon ak def lu baax waaye sëriñ bi ci boppam moo wax dama xamul ci ma maxaalix la wala ci munawir waaye dafa wax ne ñaari xaaju diine yooyu bi ci gën a jafe mooy bàyyi lu bon moo tax boo gisee mu ne la axrij min al qalbi min nil yow ma jumlata ma lam yaku indaka mahmudan li turshidani ak njub balaa moo am lépp luy ak mbon dañ koy dindi ci xol kon bàyyi lu bon moom buñ ko caaxaane nañ ciy soññante te bañ cee maslaa li tax sëñ aatu wóor na ma ne seexul xaddim dina ko metteel ca àjjana dina ko décorer ca àjjana moom loolu mosu koo maslaa ku yàlla bind bu nit mënee indi cinq cent millions ne mën naa ko joxe ci biir isbu tarxiya te bàyyiwul po da ko naan demal seeti ku ku yalwaan nga jox ko wala ku jaaxle ci boppam nga jox ko ñun jaaxle wuñu waaye nag bu nit ki xasee doon koo xam ne mi ngi ci yoonu njub moom nañu ànd di jugu ko daanu yàlla yamalewul wërsëg yi yàlla yamalewul doole yi nañ ànd kenn lu mu am ku ne dërëm bu ne kuy joxe sa dërëm bu la keneen bëggee nawal ab junneem nee ko sëñ tubaa moo la jox junni bi moo ma jox dërëm bi doo ci dara du ci dara kon yëf nekkul foofu jaayante cërub àdduna moom ku xamul rek koy def ñun ñëpp ci suuf lañu ñu mujj loolu kon moom laa doon tëjee di sant nag ñëpp ci rigueur bi conservatoire am ak nangoo gëstu bi waaye nañ ci gën a doonal ñi am xam-xam ñi am xam-xam muy waa CEC nañ leen gën a doonal te bañ a bàyyi conservatoire mu mel ni dafa beru culte beru na le conservatoire mu mel ni moom mooy daara daara boppam déedéet conservatoire na dugg ci biir CEC CEC mooy ñu yor wàllu njàng mi njàngum xam-xam mi ñu yor wàllu njàngum alquran mi ñu yor wàllu njàngum xasida mi ñu yor wàllu école yi wala daara yi loolu CEC loolu wala gëstu wala bibliothèque loolu moom ci daara ji ni mu nosoo loolu lépp dafa ànd kon foog ñuy ànd di nos mooy tax la manqué foofu ñu ma leen ko mottali waaw boo jëlee tamit téere yi li ma ci waxoon kon fa yam kon daal maa ngi sant di tëjee kàddu yi nañ ñépp ñëpp Cheikh Mamadou Mountakha am na lum ñu defal lim ñu defal nag ndigal la te ndigal ndigalal sëñ bi ki ci gën a gaaw sóobu ci mooy ëpp yool mooy gën a kawe sëñ mag bi ci waxam moo wax ne waman farra ila ridaaw farra ilay kulla ma yardaaw waman farra ila gayri ridaaw farra ilay kulla ma yaxaafu fa kullu ma tuhibboonoo fadlu boobu fi taati yi wa kullu ma taxaafoonoo fadlu boobu fi tarkil masiyati kon sëñ Muntaxa moo ñu gën a boolewaat njaboot gi fi ñu doon njabootu isbu tarxiyaa ngi nii waaye kuréelu xasida yi lañu woo màggal gaa ngi ñëw ren sunu sas dañ koo yokk premier safar lay tàmbali premier safar la njàngum xasida mi di tàmbali ci pénc mi ànd ak njàngum alxuraan moo xam ne ñun dañ ko ci boole waale bés bu set gën gaa néew fukki kaamil ak ñaar ñu boole ko ci ànd ak yëkkati xasida yi suba gi ak ngoon gi ci buntu kër sëñ Fall pénc mi yëpp dinañ ko sonoriser mu doon loo xam ne ku ñëw ci weer wi di nga xam ne weer wii mooy sunu weer sëñ Tuubaa moo هي في fii ixdaami xayril wara bada wa fii kulli sahrin zaydu rifi wa fii safar weer yëpp la sëñ Tuubaa di dolli ko waaye safar moom moo kon loolu laa bëggoon ñu xam ne liggéey bu màgg boobu nañ ko songee laxasaay nañ ko songee kuréel buñ ne yaa war a jàng waxtu sàngam na fekk nga jekk waaye li ma di wax mooy carte de membre Hizbut Tarqiyyah ngir firndeel kàddu yi sëñ Muntaxa waxoon carte de membre yooyu tàmbali na yoo xam ne dootul carte de membre yu jëkk yi waaye yu yees peq la yoo xam ne ngir firndeele ko ne sëriñ bi xabil naa war a naa li nga ñu digal nangu nañ ko te nañ ko jëfe loolu laa bëgg yéen ñi ñëpp balaa ngeen fi jóge koo xam ne amagul woon carte de membre na ko am tey day fotowu rek bu fotowoo carte de membre am dina ko fekk fa mu ne appareil baa ngi fi boo xam ne États-Unis lañ ko wutee faggu ko muy appareil boo xam ne ID carte lay génne comme carte d'identité nationale yi bañ na ko ba dafa ànd ak QR code boo xamante ne tey jii lecteur de QR képp ko mën a lire ndax loolu fi jamono toll da nga koy booleek xam nan ngay liggéeyale sëñ Tuubaa waaw di leen sant di leen gërëm di ñaan ñun ñëpp nag ñetti yi sëñ Muntaxa waxoon ne dama bëgg seen ànd gii ngeen àndaat ñetti yi mu jural leen ko nee na benn bi dama bëgg mbooloo mi gën a am doole ñaareel bi dama bëgg liggéey bi gën a taaru maanaam liggéey bi gën a rafet ñetteel bi damaa bëgg ngeen làq ngërëmal sëñ Tuubaa yàlla nañ ko suñu borom boole jox li may ñaan xoolal li may fas ci lii nga xam ne moom laay tëje sama kàddu moom xasida yi rek ma ci doy dama bëgg képp ku nekk ci biir kuréel ci biir salle bi ñu jàng benn rabbi yi bi maa yasrahu sëñ Masamba boo xam ne fi nga toog doo fa jóg waaye na ñëpp jàng wala ñëpp sax jóg taxaw jàng ko bu rabbi bi jeexee ndaje mi daal di commencé lii daal moom laa ñemee tëjee samay wax الأسرار